du leen ak jàmm seen bi di leen yor news ñu ngi leen di di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te du ko sàkku ci yéen moom Babacar Touré nag dal dina yëkkati ay kàddu dal di xam leen rekk lu boole gaay ak kii di usmaan Sonko premier ministre gannaaw ba mu xam leen rek am na ndaje ma nga xam ne amoon na te moom mi leen nag daal di na fekkee moom mu la ndaje gannaaw bu nga xamee ne nag ñenn ci ña nga xam ne nag ñu daal di daje woon sa ndaje moom moomu la gannaaw ba ñu xamalee ne kii di Ousmane Sonko gannaaw bu ñu ko jàppalee ba mu gañee daal di toog ci bopp bi ñoom ñi bu boobaa lan la ñuy daal di am. ca noonu moom Ousmane Sonko nag la mu leen daal di tontu mooy ni leen Sénégal du gato ba nga xam ne nag dañu koy partagé. moom Babacar Touré dal di xam ne ni rek loolee nag moom mile moo dal di koy fekkee te bari na ñi nga xam ne jamono ji nag ñi ngi ngaf ngafi di wax lu ne ñu dal di cay dugg te ñoom ñooñee lool rek la ñu dal di meree kii Ousmane Sonko premier ministre gannaaw bu nga xamee ne nag dal di ne leen di xamal ne leen réew mile du réew xam ne nag dañu koy partage ak séddoo réew mi ñëpp bokk la moom Babacar Touré daal di ne xam ne ne lii nag moo daal di jotale gars yi ak kii di Ousmane Sonko premier ministre bile gannaaw dëgg yi nga xam ne nag daal di nu koy fësal moom Babacar Touré daal di ne xam ne ne lii rek moo daal di jotale gars yi ak kii di premier ministre bile.